jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi maam mbégte lool dellu siwaat ak seen émission décryptage ginnaaw bañ fa defee benn bër bu ndaw tey nag euh, fas yéene waxtaanee lu am solo dégg ngeen coowul pétrole ci réew mi ak contrat yu ñu fi signé ak i gaz mu nekk coow loo xam ne bari na lool nit ñaa ngi ci di ci wax euh, mu bëri tamit ñi ci ay position yuñ ci dégagé tey ñu bëgg a cerner question bi ci ay ponk yu am solo yoo xam ne dañ ko waxtaanee. ci biir émission décryptage ak thème bi contra pétrolier enjeux et défis pour le Sénégal ñoom mbégte dalal fi Serigne Mboup Serigne Mboup kenn dootu ko présenté euh, ancien DG Petrosen yàgg ñëw fi di leeral tamit li jëm ci wàllu pétrole bee contrat yi am mbégte dalal fii ki nga xam ne mooy Abdou Malick Bousso mooy kenn koo xam ne mu ngi liggéey chargé GMP ak ITE mais ñu gën leen ràññee ci publier ce que vous payez moom tamit dina indi ay leeral ci mbir mi am mbégte dalal fii Abdou Guèye REPEAO la nekk Abdou question environnementale lañu fas yéene waxtaanee ak moom parce que nag bu ñuy wax ay contrat pétrolier day jaadu ñu wax tamit ci wàllu gàncax géeg loolu ndax jël nañ disposition yépp ngir nit ñi bañ cee loru dalal fi tamit koo xam ne c'est toujours un plaisir de l'accueillir sur notre plateau Bassirou jomaay fay inspecteur des impôts xam nañ ko bu baax a baax mu ñëw bokk ci débat yi am na débat buñ ci bokkoon ci code minier bi moom taxawaay bu rafet bu mu ci amoon ba nga xam ne ñi leen bindaat code bi sax sàkk woon nañ xam-xamam ba mu am participation boo xam ne moom tamit loolu mooy wane responsabilité soulever na ay question devant le directeur des mines ba ministre bi si boppam sàkk woon mu def une contribution écrite par rapport à ça Euh, defe naa defoon na liggéey boobu le bokk tamit ci partie bi nga xam ne moo di Pastef c'est très important ñu koy waxtaanee laaj bu njëkk bi ma bëgg a laajte tey ji ban santiment ngeen am ci contrat yu nguurug Sénégal signé basiru ban santiment ngeen ci am réellement. Euh, jërëjëf Pape Alé maa ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu sama mbokk co-débatteur yi ma bokkal plateau bi. di nuyu sa téléspectateur des stv yëpp en fait euh, ñun xam nga au niveau de de notre parti PASTEF boo xoolee les pôles yu animé woon le débat sur euh, les contrats pétroliers et gaziers au Sénégal ñun def ci am wàllu gu am solo guñ ci doon jouer mm-hmm. ba dem na sax ba bi wax ji xawee wàññeeku ñu jël suñu responsabilité président Ousmane Sonko particulièrement bind pour la postérité parce que comme on dit les paroles s'en vont les les paroles s'en les écrits restent ndax bu ñu waxee ñun ñëpp ko wax lu mu xalaat rek ñu bàyyi. Mhm. du am mémoire boo xamante ne ëllëg bu ñu waree situer responsabilité ku ne ci étape bu ne ci biir ressources naturelles yi feeñee dina xaw a am lu des ñun dañoo jàppoon ne. te bu loolu lañ am impression ba léegi que processus su euh, attribution bloc pétrolier yi fi jotoon am particulièrement euh, Saint-Louis offshore ak euh, offshore yoo xam ñooy bloc yu gënoon prometteur nu mu waroon demee en termes de transparence et de sauvegarde des intérêts du Sénégal demewul noonu ba taxoon na mu bëri woon loo xamante ne suli woon nañ ko ci mm-hmm. te li ci gënoon fas nekk genre wu complot bu amoon bu intégré woon benn élément boo xamante ne kenn dëggatu ci dëggatul turam ci fu ñu toll nii mooy Franck Timis ndax code minier Sénégal code pétrolier du Sénégal plutôt dafa am processus bu mu établir ci bu ñu dee euh, euh, signer un contrat pétrolier te ñu jàpp ne contrat pétrolier balaa muy contrat de de pétrolier mooy contrat de recherche de partage de production balaa muy am valeur benn décret ñëw apprové ko décret boobu ci buñ koy approuvé day am toujours rapport de présentation boo xam ne ministre en charge du secteur des mines moo koy def en l'occurrence à l'époque Aly Ngouille Ndiaye la woon li ñu seetlu woon mooy dafa am ay sociétés yu intervenir ci processus boobu mooy un Petrotim deux Timis Corporation ak plus tard Cosmos Energy bi Petrotim ñëwee dafa jaar ci frère président de la république c'est vrai que am na épisode bu weesu boobu mais phase boobu moo ñu gën a intéressé ba mu jaaree foofu ba am contrat ñu signal ko décret lu ñu seetlu mooy Petrotim ak Timis mu nekkoon la mu nekkoon euh, société mère Petrotim Petrotim bi la société filiale maanaam doomam moom sax moo mag yaay ji xam loolu day commencé andi ay soupçons yoo xamante ne bu ñu demee ba ca biir. Mhm. on s' est rendu compte que effectivement lu ñu waxoon yëpp que Petrotim am na expérience timis mooy nangam ak yu demee noonu yëpp à la fin amul dara loo xamante ne doon na ci dégg objectif principal bu ñu amoon depuis le départ ci di def montage boobu di planquer ay société ci paradis fiscaux yi c' était in fine pour benn élément ñëw spéculer ci suñu ressources naturelles en fonction en en, en l'occurrence Frank Timis. jaay titre yoo xamante ne jox nañ ko ko am empoché xaalisam dem Sénégal du ci am dara te engagement yoo xamante ne moom ñoo ñoo sous-tendroon ñu jox ko contrat yooyu engagement yooyu notament engagement d'investir ak yu demee noonu amul dara loo xamante ne war nañ ko euh, wàccoon nag ak moom Sénégal amoon possibilité nag def lu ñuy wax préempté maanaam bi mu demee ba bëgg a jaay timis bëgg euh, euh, Petrotim bu mu demee ba bëgg jaay timis hmm. Sénégal dafa amoon droit ne Petrotim segam yow demato dañuy xool déjà engagement yi nga jëloon ndax respecté nga ko on s'est rendu compte que engagement d'investir yi respecté wu ci woon dara mais puisque engagement yooyu respecté wu ko bu demee bay jaay Sénégal dafa war a moo am droit d'abord jënd te premier ministre waxoon nañu fa à l'époque c'était une session à titre gratuit maanaam bi Petro-Tim di jox Timis Timis fayul dara raison de plus puisque amatul lu ñuy jënde ndax dañ koy jël gratuitement Sénégal daf ko waroon a jël xool nag ku ko doy mu contracté ak moom et puis ci transmission titre yooyu nag in fine on s'est rendu compte que dañu li ñu waroon imposer la parce que nekkul woon ci champ d'exonération boo xamante ne disposition article 48 à l'époque du code pétrolier prévoir nañu ko encore que au moment de la session même fekk na disposition boobu ñu abrogé ko par la loi 2012 32 ba le nouveau régime du droit comme incitatif bi loi 2012 31 euh, ak 2012 32 euh, instauré dafa doon soumettre carrément l'opération au moment de sa réalisation à la fiscalité mm-hmm. in Sénégal impôt bu mu ci waroon am sax amu ci dara mais lu ñu jaaxaloon pour finir mm-hmm. mooy bu ñu ko soulever ñi nga xamante ne ñoo waroon am taxawaay gu war pour Sénégal am lu mu ci war a am amul kenn koo xamante ne am na ci taxawaay boobu lu dul ne dañu doon miimal ne petro warul fay timis warul fay lu jëlee ci ministre de de l'énergie des mines ba ci ministre de l'économie et des finances en passant par le premier ministre donc ñun lecture boobu lañu am léegi ba tey que Sénégal li. a perdu beaucoup de choses. a perdu beaucoup de est-ce que ce sentiment là. mais évidemment que du sama sentiment Pape Alé franchement euh, avec tout le reste su ma xamoon ni dañuy ñëw. di waxaat ci contrat pétrolier pendant un an et demi def nañ débat leeral sénégalais moom du doy mukk mhm. du doy mais mais il faut il faut ñu avancer. xam nga li muy wax nii yëpp euh, lu ñu def ci yoon lañ ko teg xam nga code pétrolier dafa am première chose bi ma bi nga xam ne nekkul malheureusement on est obligé de delluwaat ci ay BABA wax yoo xam ne euh, mënoon na ñàkkaat. mën nañ ko tënk. waaw mën nañ tënk non autant de temps quand même. pour pour leeral nit ñi. Ah. première chose Sénégal code pétrolier am nga droit jox société. boo xa jox nit contrat pétrolier Pape Alé Niang mun nga ñëw gouvernement bi ni Pape Alé wóolu naa ko dama lay jox contrat code pétrolier moo ko wax nga am juróom-benni weer pour créer société exploité ko première chose donc bi ñu naan société bi maam ji moo ak rakk ji yooyu waxu caaxaan la première chose deuxième chose Pape Alé euh, wax naa la am na benn jour ma junj la parce que ñiy wax aussi de bonne fois et je maa ngi leen di féliciter sax ñoom wax naa ko ci beneen plateau parce que contribuer nañ ci lancer un débat bu leeral nit ñi bu bind ci livre sax même si ku nekk am na ci sa su gis-gis euh, dañu waxaat ci code pétrolier dama la woon nela mu ngi ne engagement yi Petro-Tim jëloon defu ko mais c'est complètement faux Petro-Tim ba mu ñëwee loolu mu naan lettre la bu ñu bind muy présentation motif yi premier ministre euh, Amadou euh, Abdoul mbay ministre président la République Macky sal bi leen ko Aly Ngouille Ndiaye di jox jox na leen lu bëri lu bëri li mooy leen jox na leen garantie huit million de dollars huit millions de dollars laa wax de xëy na ñoom gisuñu loo ci bloc bu ne bloc bu ne ba ko bañ leen di jox motif yooyu mhm. garantie huit millions de dollars su Petrotim deful liggéey bi état Sénégal jël ko muy ñaari garantie huit million de dollars muy seize millions de dollars document bi yóbbu loolu loolu la deuxième chose société bu ñu doon jox tey Pape Alé Niang Pape Alé ñoom ñu xam ko ci journalisme mais mun nañu wax ne Pape Alé am na expérience journalisme il faut ñu xam ni Petrotim groupe Timis Corporation Timis Corporation mais euh, nu ñu wax de capitalisation boursière am c'est plus de neuf milliards de dollars ay banque yu mel ni Société Générale banque yu mel ne euh, sa maa ngi fàtte sax tellement dañu bëri les plus grandes banques aux États-Unis JP Morgan mm. ay Chase Manhattan mais ak prudential ay assurance yoo xam ne société gën a mag àddina ñoom moom loolu donc Frank Timis c'est un actionnaire de ce groupe Timis Corporation ak ñooñu c'est ce groupe là qui a porté euh, loolu ma la wax muy muy garantie assurance garantie bancaire yoo xam ne exécutable à première demande de huit millions de dollars par bloc joxe ko loolu dafa leer donc il faut ñu wax sénégalais li nga xam ne moo dëgg amul dara loo xam dañ ko def mu nekkul ci yoon leneen li nga xam ne wax na ko aussi franchement avec tout le respect que j'ai pour moom c'est un jeune inspecteur des impôts ils sont combien d'inspecteurs des impôts au Sénégal ils sont 100 200 400 je ne sais pas mais directeur am euh, kii inspecteur la ko moom mais directeur de, de secteur am mais inspecteur la comme moom mais am nañu moom lu mat peut-être cent ou 50 collègues sénégalais patriotes man loolu laa gëm kenn ku nekk yoo xam ne ay inspecteurs lañu ñaar ñetti nit jóg nekk à l'encontre de toute leur corporation c'est-à-dire nga jël lu ma juróomi téeméeri nit ñaari nit ñetti nit gise ni ñu ne li ñu gise mooy dëgg et puis Sénégal di dox depuis 1986 code pétrolier ñu modifié ko 98 ñaata génération d'inspecteurs de domaine depuis Serigne Lamine Diop ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñëpp xam nañ ni bëgg nañ Sénégal doxal nañ ci mais ñoo ñëpp dañu juumandoo wala dañu def leneen je crois que loolu amul beneen élément bi important code pétrolier moo ni Pape Alé bu ñu la ko joxoon ci sa tur loolu kenn waxatu ko c'est codifié article huit code pétrolier ku dem gis ko mais nga jël nga créer sa société di ko exploiter code pétrolier moo la ni fu la neex ci période boobu nga jaay ko la neex mun nga jaay lépp mun nga jaay leneen mais xanaa Frank Timis la ñu yëpp mais man directeur général Petrosen 2004 man maa signé woon contrat bi nga xam ne moo def découverte pétrole bi tey décomposé kan la ñuy wax fi mu nekk nii Woodside la ñuy wax Kern Energy la ñuy wax Far la ñuy wax mais xam nga kan lañ ko signalé xam nga kan lañ ko signalé Hunt Oil société bu nekk Dallas ba moo ko yore trois ans woo ñi ñu dugg ci mu dese quatre-vingt-dix pour cent après mu dem ñooñu toog ba dix ans après ñu découvrir mais code bi moo ko moo ko permettre et puis du code Sénégal Sénégal judduwul rek ñun ñoo fi mu jàmm pétrole àddina bépp am pétrole code bi dañ ko jël ci ay standards internationaux donc xam nga man lu ma bëgg franchement euh, li ëpp solo tey parce que Sénégal yëpp xam nañu aussi nag ñun ay boroomu kër lañu ñun ñëpp ay patron lañu fi la ñu dëkk man dama foog na kuy wax rek da bëgg mu baax mais nañu jàpp ne lu ñu fi def yëpp lu ñu fi def yëpp ci kii contrat yi en tout cas xaw ma lu nit làqu def waaye li ñu bind ak procédure bi ñu jaar topp na régulièrement code pétrolier xëy na di nga ci ñëw am na lu ma d'accord ak ñoom mais am na affaire impôt yi. aussi mi ngi invoqué loo xam ne mënul nekk. bëgg non non c'est important pour leeral benn point rek ma bàyyi. Mhm. moo di impôt yi réforme bi am 2012 31 décembre mais contrat yi dafa am clause de stabilité contrat bu ñu signé 2004 nga toog ba mu neexal nga changé sa sa impôt sa sa sa sa code général des impôts en nga bëgg ko appliqué ko mais loolu mënul nekk contrat yooyu dañu am clause de stabilité yooyu ñu defoon. 2004 ak bii 2012 découverte yi benn bu ci ne impôt sur les sociétés 25 pour cent lay fay ndax clause de stabilité yooyu te tey code général bi 30 pour cent la donc il faut ñu wax ni ñi li nga xam ni moo am man vraiment. dama bëgg rek. ñu avancer on va avancer. li mu dund nag am na ci problème yoo xam ne suñu réviser code pétrolier bi. moom laa bëgg ñu mel ni moom war nañ ci indi seen xalaat ak ñeneen. moo avancé mais ñu bañ a toog ci. Euh, dëgg la Abdou Malick Bousso. payez ce que vous publiez seen sentiment ci code pétrolier lan la. Euh, jërëjëf Pape Alé euh, balaa ñuy wax ci code bi euh, gaz ak pétrole dafa dafa yees ci réew mi. Mhm. lu bees la xamuñu ko woon ba léegi xamaguñ ko gaz ak pétrole en Afrique dafa indi lu bees nit ñi dañ ci am ay yaakaar ak tiitaange yaakaar bi mooy dañu yaakaar ne am na koom buñ ci mun a am. tiitaange bi mooy que ñi ko amoon xëy na liñ ci doon séntu gisuñu ko ñun nag dafa bees ci ñun te kodd bi ñu yore code bi dafa màgget. le code est obsolète. il est obsolescence bi mën nañ ko xayma ci ñaar ba ñetti fànn fànn bu njëkk ba mooy que. opacité contrat yi mënatul di perdurer parce que am na loo xamante ne lu yees ci àddina mooy initiative pour la transparence dans les industries extractives dafa am ay normes yoo xamante ne ak ay standards yu yees yoo xamante ne maytul ngay signer dina nëbb li ngay signer il faut ñu publier ko il faut que nit ñi xam lan la ëmb muy benn. est que am ngeen sentiment ne publier nañ contrat yëpp. ko euh, publier wuñu contrat yëpp. am na si contrat nag yu ñuy publier. Mm, waaw te publier contrat tamit nañu dem seeti li contrat yi ëmb mun koo waxtaan ak nit ñi xam lan moo ci baax lan moo ci bon pour suba bu ñuy changer wala bu ñuy signer ñu xam lu ñuy signer am nañu beneen problème mooy que ñi war a signer xarale bi ñu war a am des na par rapport parce que dafa bees ci ñoom war nañ leen tàggat war nañ leen. Euh, renforcer seen capacité ba ñu mun a signer contrat yooyu beneen beneen mbir bu yees ci euh, lu waral ñu tëggaat euh, code pétrolier bi mooy que pétrole bi ak gaz bi ak ressources naturelles yi askan wee ko moom askan bu moomee mbir ki koy yore nu ñu koy yore ñan ñoo ko war a càmbar loolu yëpp dafa war a beesaat dañ ko war a yeesalaat ci code bi mm-hmm. parce que parlement bi war na ci am kàddu citoyen bi war na ci mun am kàddu collectivité local yi war na ci am mun am kàddu ku am sañ-sañ di wax wala di yëngatu ci turu askan bi war nga mun a mën a lay ci loolu te loolu yeesalaat code bi dina la may ay pexe ak ay jumtukaay yoo xamante ne di nga mun yow citoyen bi di nga mun yow collectivité local bi défendre say intérêt wala intérêt communauté yi te loolu parlement bi est-ce que dañuy bàyyi rek gouvernement bi di négocier di signer contrat est-ce que procédure de validation parlementaire bu ci am. Hmm. parce que lu lu ko indi mooy réforme constitutionnelle yu may sañ-sañ yu bees ci moomeelu. am na ci am na ci référendum bi. Ah, waaw am na ci référendum bi am na. moo ñu may sañ-sañ naturelle moo ñu may sañ-sañ bi am na ci référendum bi. voilà donc euh, code bi euh, dafa am problème dafa am problème parce que bi ñuy koy nas dañ doon bëgg nit ñi ñëw yër lañ lañu ñu yore. dañ leen attirer investisseurs yi léegi. xam nañu ne am na lu fi ne jarutul ngay xëcc déppi jarutul ngay yàkkamti di signer contrat suñu problème loolu la lu tax ñuy yàkkamti di signer ay contrat yu yees fekk waaju lu ñu réew mi waaju lu ñu ñuy di signer waaju lu ñu suñu bopp ci lu bees li am très bien alors euh, ma ñëw ci Abdou euh, spécialiste en hydrocarbures donc euh, ce sentiment par rapport ak les contrats qui ont été signés sur les sur la question de transparence est-ce que c'est le code moo nekk le problème fondamental parce que le code est obsolète merci beaucoup Pape tout d'abord mooy ma balaa mooy revenir dans le vif du sujet ma nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi mais également di nuyu sama famille bu baax nuyu samay xarit mais surtout di nuyu association bi nga xamante ni c'est l'association des jeunes géologues et du Sénégal di nuyu également le groupe de recherche et d'appui au secteur extractif qui est basé à l'UGB parce que en tant que chercheur je pense que mënuma ñëw tam jaar ci plateau bi sans ma tudd leen. très bien nuyu nañ leen yéen ñëpp. Abdou nuyu na leen léegi nañ dugg ci sujet bi. voilà. donc euh, li nga pose vraiment c'est une question très très importante et qui répond également à son heure. c'est vrai que débat bi bëri na lu muy tourner surtout sur les étapes du contrat peut-être man damay aller même au-delà. Parce que quand on parle de l'exploitation pétrolière et gazière, il faut d'abord comprendre les enjeux. Et que ce mouvement utilisant enjeux, yi, ça ne se limite pas uniquement sur les contrats. Peut-être je vais rester sur le contrat après pour revenir un enjeux peu là ça fait mal. Il y a des enjeux financiers, il a des enjeux techniques, il a des enjeux également sur le contrat, notamment le contrat de richesse de partage de production. Peut-être dinaa ko insister enjeux socio mais également il y a on pose le débat sur le contrat d'abord oh, wax nga contrat bi benn point la woon rek dama doon def échauffement. également euh, pour pour pour gars yi après. yu dugg dafa am lu ci am solo dañu ci contrat de partage ak yooyu yëpp. am lu ci am solo. Mhm. souvent damay gis débat bi dañ koy orienté mais li ëpp solo waxaguñ ko mooy l'équilibre des intérêts. fan la ñuy mën a fexe ba permettre état mu gën a mën a tirer profit sur les contrat mhm. nous avons un contrat de recherche de partage de production. c'est-à-dire ñii ñëw nañ ni Timis Corporation ñii ñëw nañ ni Cosmos mais defe naa même code bi sax sur l'article 8 précisé na ko bu ñu waree joxe contrat kan lañ koy jox et dans notre formation ils ont bien précisé pour donner un contrat il faut s'assurer de deux choses c'est-à-dire la capacité financière de cet opérateur mais également la compétence technique nekkul ay termes yoo xamante ne da koy utiliser pour mu dem qu'est-ce qu'on entend par capacité financière parce que question de boursière la maîtriser au moins Euh, quinze opérateur bi nga xamante ni moom moo def exploration parce que y a des risques après damay revenir sur ces éléments ñi ngi naan y a les indépendants y a les majors et dans l'exploration d'habitude c'est les majors qui interviennent les, les juniors plutôt c'est-à-dire les indépendants qui interviennent mais y a un risque sur ça bu ñu ñëwee ci peut-être phase de développement dañuy changer c'est les majors qui interviennent mais ñun en tant que pays sous-développé la question du contrat de partage de production a une signification ça quoi ñun en tant que pays sous-développé ou bien en de développement si je reviens un peu sur l'appellation de de la euh, de l'ONU mm-hmm. dañi amoo capacité financière pour tenter des risques amoo également compétence technique compétence technique bi ñu koy wax mooy au mois compagnie bi est-ce que am na benn yoon bu ñu xam dans le monde fu mu exploiter quelque chose donc bu ñu revenir donc sur compétence technique au minimum war nga am fi nga xamante ni parce que le pétrole c'est la géopolitique Sénégal bu mu amee découverte fépp la siiw bu ñu indee benn compagnie ni moom mooy opérer est-ce que am na compétence technique bi juste pour tirer un peu un exemple en ce qui euh, ce qui se passe en Mauritanie Mauritanie si tu prends le cas de Woodside qui est actuellement remplacé par euh, ConocoPhillips en moom moo occupe woon bloc de Chinguetti bi mais dañu constater erreur yi mu jot a def si début bi dafa ñëw joxe des fausses information mm-hmm. le pourquoi parce que dafa am contexte. euh, l'exploitation onshore est différente de l'exploitation offshore, c'est-à-dire l'exploitation sur terre est différente de l'exploitation en mer. Il n'a jamais fait l'exploitation en mer. mu joxe des fausses informations mu am benn déstabilisation bi mu am moom si boppam parce que dafa mujj dem Petrobras ñëw ça veut dire quoi dafa ñëw joxe des informations xamante ne c'était pas les bonnes informations donc il ne maîtrise pas techniquement cette zone ou bien ce milieu en ñun bu ñu tolloo foofu man pour man loolu la ñu war a poser le débat kan moo am profilu def wax na ko léegi sur la constitution dafa am li ñu naan la reconnaissance des nouveaux droits aux citoyens sur l' article vingt cinq un les ressources appartiennent au peuple donc soxla na ñun ñëpp ñu xam ce qui se passe te li ëppal solo li nga xamante waxuñu ko man dama naan nañu revenir sur le fond même du débat le contrat de partage de production veut dire quoi parce que y a des termes comme cost oil ça veut dire quoi des cost comme euh, des, des termes comme profit oil ça veut dire quoi parce que pour man bu ñu comprendre loolu man ak ku mënti ñëw ah je me demande qu'est-ce Sénégal peut Et la lecture de ces contrats, je vois qu'il y a énormément de gaps. Peut-être les contrats sont obsolètes, mais il y a toujours une possibilité de redémarrer encore une fois. Parce que le Sénégal a des blocs, mm. énormément de blocs, et que ces blocs sont limités. Donc on peut essayer quand mm-hmm. le Sénégal à sortir peut-être de mm. d'accord que est obsolète Le code B basé pour signer parce que c'était pour attirer mais comme on a des riches, euh, on des richesses gars yi xam nañ ko waroon na mën tëggaat code bi balaa ñuy defaat contrat. en fait euh, déjà yaakaar naa ne que euh, le gouvernement en est conscient parce que ils sont en de travailler sur un projet de code. Mm -hmm. euh, pétrolier. mais ce qu'il y a déplorer c'est que comme ils le font tout le temps dañuy tëju togg seen toog bu génnee ñu ne leen dafa bëri xorom ñu doog a naka la ñuy def ba defar ko. c'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs au départ ci code minier bi. il a fallu que ñu pare jox ko à la société civile que société civile wax leen ne non non non duñ dugg ci mascarade bi ñu jox leen délé ne leen jël leen le temps qu'il faut yaakaar naa ne bi may ñëw fii en débat euh, l'avant-projet du code était déjà rédigé. Mhm. xam nga li ñu li ñu war a xam boo gouverner un pays seen seen ressources naturelles yi du question du temps tey nga koy gérer parce que day transcender un gouvernement transcender ay génération moo tax pays yi nga xamante ni yëpp ñu ngi dans une gestion responsable et durable de de les ressources humaines ils ont une démarche inclusive boo xamante ni même bu ñu amee en organisme organisme dafay ubbeeku à la société civile tey par exemple boo jëlee le COS-Petrogaz doo fa fekk société civile lool Sénégal quasiment la am amul société civile n'est pas présent au niveau du COS-Petrogaz COS-Petrogaz ma fàttali mooy kuréel bi président de la République teg pour affaire saytu affaire pétrole du noonu pour contrôler contrôler les contrats. pour même pas di leeral dañu wax ne dañu c'est pour assister. le président de la République dans la définition même côté yi sax xëy na ci génn nga xam ne que les du du COS-Petrogaz ci lu mu war nekk dañoo tuuti par rapport ak fi ñu koy xaaree. mais puisque ñu ngi ci phase su waxtaanee euh, le code pétrolier moi je pense que dañ ko war a yaatal au maximum possible pour que képp koo xamante ne am na loo ci apporter nga définition politique personnelle la affaire état la maintenant euh, le code heureusement et contrairement aussi à ce que dit le doyen je suis désolé xaw na am na xaw na am lu ñu ci rattrapé parce que sinon kon réforme 2012 bi du woon am benn njëriñ 2012 bi ñu ñëwee bi alternance 2000 ñëwee dañoo commencé gis ne que les compétences de la définition de la politique fiscale pour le bëri dafa am lu doon échappé administration fiscale boo jëlee la cas boo xamante ne tey moo ñuy gën a lor mooy la signature de la convention entre le Sénégal et l'île Maurice tey société yi ngay gis fii yëpp yu ñu créé ak yu ñu waaj a créé yëpp dañuy dem créer une société mère en île Maurice nga lan lu tax parce que bu société sénégalaise day fay une société mauricienne impôt bu ñu ci waroon jël Sénégal fii duñ ko jël ndax dañu am convention ak île te quasiment amul benn société buy dem ubbi île Maurice ñëw ubbi sa société maire fii donc du coup on perd sur toute mmh. mais le le de 2012 lu mu bu mu ñëwee fekk ay exonération ci biir code pétrolier fekk ay exonération ci biir code minier fekk ay exonération ci code des investissements fekk ay exonération un peu partout dafa jëlaat loolu yépp ci loi 2012 32 bu accompagner la loi 2012 31 portant code général des impôts ne léegi képp ku bëggati xam le droit commun incitatif maanaam loo xamante ne Sénégal daf koy bàyyi pour nit ñi mën a ñëw investir fii ci code général des impôts rek nga koy fekk te loolu clause de stabilisation yi mënuñu tere mu appliqué wu surtout pour ñi nga xamante ne c'est de ñu ngi door a ñëw xam nga li jàpp di jàpp euh, Témis ak ak euh, ak ak Petrotim même bu ñu dee wax waxu groupe sax société yooyu noonu bu ñu koy créé ñu ngi ko créé entre 2011 ak 2012 surtout 2012 pour ce qui est euh, de de de de de de de Témis maintenant acte yi mu posé par la suite na ko ñu dans le courant dans dans l'empire sous l'empire plutôt di code pétrolier de 98 mais plutôt sous l'empire de la loi 2012-31 bu fekkee ne bokkul ci actes yi ñu définir comme étant des opérations pétrolières maintenant effectivement le code de 92 mënul nekk le code actuel d'ailleurs bu ñu doon xoolaat le code minier xam nga amoon nañ en code minier boo xam sax c'est plus récent que le code pétrolier parce que le code minier il date de 2000 il datait de 2003 boo xoolee l'exposé des motifs de la loi dañu waxoon ne Sénégal dafa war a ubbeeku pour investisseurs yi ñëw c'était normal mais boo xoolee le code minier de 2000 de 2016 novembre 2016 dañu wax ne phase boobu réussir nañ ko ndax nit ñi ñëw nañ léegi nañu xool maintenant naka la ñuy sauvegarder intérêt au Sénégal ci biir le nouveau code bu ñu bu ñu nekk di jël. Mhm. te loolu dañoo soxla le maximum de garantie et le maximum de compétence pour mën a réaliser réaliser cette phase transitoire là. est-ce que foog nga ne dans la de du l l'État a les moyens. face ak major yi nga xam ne dañu am doole xam ne dañ leen di woowee sax les multinationales ah dañu am doole dëkk yu bëri sax perturbé nañ ko ñoom de par capacité financière est-ce que foog nga ne état Sénégal jël na toutes les dispositions pour faire face à ces états avec des spécialistes ba contrat yi nga xam ne dañ koy signé population yi dañ ci gis seen bopp. waaw il faut ñu wax ne contrat yi ñu signé ñi ko signé maîtriser nañ ko safe fait vingt cinq ans ñu ngi liggéey ci loolu foog ñu respecter code pétrolier bi ñi ciy liggéey ba signé contrat yi maîtriser nañ ko nga lu ñu xamagul te mu bees développement ak toutes les lois qui vont les réglementation des opérations booy développer ak yooyu les nouvelles exigences environnementales mais la fiscalité même très complexe en cas de production et cetera mais def promotion rencontrer ay compagnie signer un contrat de partage de production loolu vraiment Petrosen il faut ñu xam ne aussi Petrosen ay sénégale ñoo fa nekk ay doomu réew mi yoo xam ni ñii dañ choisir dem ENA nekk inspecteur ñoom ñu nekk ingénieur dem jàngiwaat ci yeneen école def ay MBA def yeneen loolu nekk seen métier il faut ñu jox leen te du ñu ay ay ay ñoom ñëpp dañu am euh, yaakaar ne liggéeyal réew mi moo tax te liñ def noonu lañ ko defee donc li bees te mënuñu fa àgg mooy loolu maintenant euh, je pense que wax ngeen ko yéen ñëpp code bi bi ñu koy def 86. 98 mhm. mais benn société nekkul woon Sénégal et puis offshore dafa ki yoon te code bi euh, obsolète dans le terme obsolescence c'est-à-dire dafa am yoo xam ne dafa ànd exigence yu jamono yu bëri yu ci bokkul. dañ ko war a réajuster dañ ko war a réajuster ensuite xoolaat suñu intérêt yi comme ni nga ko waxee c'est-à-dire que bu fekkee dañuy def production mais tranche de production yi ñu seddoo léegi mun nañu gën a dëgëral parce que bu njëkk quand même <laughs> mais tey dañu découvrir rek mais vingt trente compagnie def nañ fi cent millions deux cent millions ay forage gisuñu dara ñuy jël seen bagage dem donc li découverti dafa am li ko indi donc ñu ngi koy réviser te révision bi aussi euh, aussi am na il faut aussi ñu am humilité man bu ñuy réviser code général des impôts mais je suis un citoyen j'ai des droits yow mais kenn du la woo parce que ñoom ñoo ko xam am na foo xam ne bu ñu fay toog di xalaat ay c'est des spécialistes ñoo xam ne te nañ waxante dëgg ñëpp amuñu xam-xam ci lépp il faut ñu respecter xam-xamu nañu les universitaires les ingénieurs société civile bu dee société civile euh, sans compétence spécifique bu dul défendre askan wi comme ni ñu ko xamee am na étape bu mu war a ñëw mais bu bu bu bu fink kii ni ñu ko waxee di shadow cabinet yi liggéey technique ba pare ñëw dafa war a am ay ay séance de partage yoo xam ne nii toutes les couches de la population ak institutions yi assemblée nationale au conseil euh, conseil économique et social environnemental. temps yi gis nga liggéey seen recommandation. Mm-hmm. Euh, bon je pense que dina am moment yoo xam ni dinañ agsi ci ñoom les parlementaires les parlementaires ñoom monsieur Sonko mais aujourd'hui l'objectif c'est vers euh, le printemps de de de d'avoir un code pétrolier qui peut être voté par l'Assemblée nationale mais bu demee foofu ça fera l'objet d'un débat sérieux rigoureux et puis yeneen instance yi nga xam ne ñu ngi fi mais pour le moment il y a des cabinets internationaux nga ko ñun xamuñu lépp lundi rek man maa ngi woon séminaire COS Petrogaz mais avec des top compagnies du du monde yoo xam ne États-Unis Arabie Saoudite ko soxla ci ñoom ñoom ngay wo ñooñu la ñu woo ak des anciens PDG de sociétés comme la Sonatrach qui est africaine qui fait partie des grandes compagnies au monde et des Norvégiens et d'autres personnes yoo xam ne dañuy ñëw parce que xam nañ ni xamuñu lépp il faut ñu bokk ak nit ñi ubbeeku bu ñu àggee nag fi nga xam ni toll na société civile ñëw en ce moment ñu ñëw ci société civile mais il y a des fondamentaux techniques yoo xam ne euh, je suis désolé Petrosen amu ko état bi amu ko en son sein euh, euh, nu ñu koy waxee société civile aussi amu ko et yooyu nag dañuy y a le processus de formation on va pas revenir sur ça mais am na ay jeunes sénégalais fi may wax ak yu bëri yoo xam ne état yóbbu na leen dans les plus grandes universités du monde que suñu institut. mais est-ce que c'est possible euh, loolu bëggoon naa la ko laaj est-ce que c'est possible l'État jékki ba si yàgg réviser contrat yi. c'est possible ça am na. réviser contrat yi def nañ ci loolu. non non je veux dire que contrat yi ñu signé ak ay sociétés pétrolières laa wax. no am na lu ñu mën a discuter waat. discuter waat est-ce que c'est possible mais les de base on ne peut pas revenir là-dessus parce que toute l'économie yi nga xam ni moom moom la nit ñi gën a gën a séntu naan day déséquilibré. mais c'est l'économie du projet soo produire tant de baril di nga am tant par jour su ma produire tant parce que yow yaa ko wax Pape quand même euh, président moo proposé référendum bi coow ñu ko voté wuloon d'ailleurs xaw ma lu tax ñu ni ñun dañuy jël affaire bi jox ko Sénégal ñun ñoo ko moom moo tax tey de façon légal et ñu mun a taxaw di laajte mais euh, référendum boobu bi mu indee loolu dafa joxale nit ñi ay ay ay pouvoir de contrôle ak yoo xam ne dañoo am obligation di leen rendre compte mm-hmm. donc je pense que am na lu ñu mën a négocier waat mais am na yoo xam ni kenn mënu ko négocier parce que c'est ça qui caractérise la stabilité du contrat dernier élément sur li mu wax léegi euh, euh, professeur sur euh, les les sociétés je pense que baax na aussi ñu wax ne euh, état du Sénégal jël na décision d'ailleurs kenn dootul signe contrat en attendant justement suspendre nañu signature nouveau contrat en attendant que waxtaan wi ci code pétrolier bu bees bi àgg. Mhm. comme ça ñu gën a sauver parce que léegi on est un état producteur. voilà et pour dire que on est ouvert. ñëpp ubbeeku nañu pour dialogue Abdou Malik par rapport à votre euh, association Publiez ce que vous payez yéen activité ngeen mené pour sensibiliser les populations pour ñu mën a rendre compte que ñoom tamit war nañoo jóg taxaw laaj seen ak seen yelleef ci contrat yi ñu signé. Euh, activité yi ñu mënee Pape Alé bëri na. activité de sensibilisation. demande na woon ngeen d'ailleurs ñu président de la république mu publier contrat bind nañ ko lettre d'ailleurs pour mu publier contrat pétrole euh, total. c'est fait ak euh, c'est pas encore fait euh, on attend. Et je crois, je, je crois que ce sera fait bientôt. Il sera fait. Tous les contrats. Tous les contrats seront, publics publier sax c'est journal officiel lay nekk. il faut ah, que du large publication parce que. loolu suñu role la ñun ñu dem jéegaani ko. mun ko càmbar. mun ko waxtaanee ak nit ñi euh, li ñuy def bëri na vis-à-vis euh, des communautés euh, muy pêcheurs yeeg muy parce que gaz beeg pétrole bi offshore la li ñu gisagum mooy que ci xolu géej gi lañ koy namm seeti mhm. te dafa laaj dafa am lu muy indi lu yees lu muy indi ci géej gi ñii ciy yëngatu ñoom lay dina leen impacté xëy na sëriñ Abdou dina ci ñëwaat ci environnement bi ci air marine marine protégée gi biodiversité marine bi loolu yëpp euh, am na loo xamante ne société civile war na ci mën a liggéey mm. ak ñi ngi jëflante géej gi euh, ñun lu ñu gën a intéressé mooy que peut-être ma xaw ci interpellé tuuti doyen bu mooy que euh, ne mbir mi mbirum xarale la rek yem ca ñun mënuñoo doy mënuñoo doy parce que dañoo am sañ-sañ Euh, sañ-sañ bi la constitution jox d'ailleurs. bi jox. avant constitution bi ma jox sax euh, maa ko joxoon sama bopp en tant que citoyen ah. waaw léegi euh, loolu amoon nañ ko ci code minier bi sëñ fay wax na ko fi léegi. Hmm. dañoo liggéey ba pare nañu vous avez 48 heures pour valider le document di code minier jël suñu bagage génn salle bi bàyyi leen fekkee faire valoir ngeen soxla. ñun ñu ngi dem ba ngeen soxla ñu ngeen woo ñu. Mm-hmm. ñu woowaat ñu waxtaan ak ñun xam ne xëy na war na am lu ñu war a mun a indi xëy na kenn ci ñu du spécialiste une question mun nañu dajale une expertise nationale. Mm-hmm. boo xamante ne mun na xalaat ci mbirum gaz ak pétrole. ñu ngi liggéey ak une association qui regroupe d'anciens pétroliers comme monsieur Mboup qui travaille avec notre coalition c'est d'anciens de Petrosen c'est des ingénieurs euh, c'est des fiscalistes pétroliers c'est des juristes pétroliers ki sont là et qui ont une expertise à faire valoir il dans la diaspora am na ay mécanismes yoo xamante ne mu ngi fii en Afrique mécanisme Sherpa mécanisme de euh, la euh, la CA au niveau d'Addis Abeba yooyu yëpp dafa am yoo xamante ne xëy na nguur gi mënu ci bu mënul dem ci yenn yi ñun mun nañ cee dem mun nañ ko indil. parce que mmh. loolu yàgg nañu di liggéey ci euh, processus ITIE bi dañuy boole suñu xel ak suñu xalaat di liggéey pour wut transparence ci est-ce que jox information yi ngeen soxla ci wàllu pétrole beeg gaz bi. Euh, pour moment xam nga pétrole beeg gaz bi fu ñu toll. mooy euh, Petrosen la. Petrosen ak ak Fortesa bëriwul. Mmh. moom dañu koy séntu. dañ koy séntu léegi lu ñuy am lu ñu gën a am. Euh, la ci mines yi la ak ci euh, cimenterie yi moom mooy gën a jur. ak phosphate yeeg bëgg naa nga ñu ñëw ci affaire question environnementale parce que ça c'est important. parce que on peut signer des contrats bu ñu signer contrat Sénégal lu bari xaalis ba la ñuy xalaat waaye la muy yàq duñ ko dañuy bàyyi ba après ñuy dabal te loolu bëgg naa ñu xool est-ce que suñu contrat yi ñu signé soor nañ ko bu baax a baax ci wàllu napp gi parce que affaire bi ci biir géej gi lañ koy jëlee. effectivement bon maa ngi lay wax léegi ni la enjeu yi d' abord da ko war a mhm. et donc benn élément bi enjeu environnementaux yi la. bien sûr mais léegi euh, doyen Serigne bi dafa wax lu am solo dama ci bëggoon rebondir tuuti avant ma ñëw ci enjeu environnementaux yi. xam nga bu ñu xoolee code pétrolier bi ba jusqu'à nos jours ça fait 19 ans et ça se comprend parce que y a su fekkee amoo la maîtrise de la cartographie de tes ressources on peut appliquer ce qu'on appelle premier arrivé premier servi mais du coup on a peut-être quelque chose de sûr peut-être on passer à l'appel d'offres juste pour wax la enjeu fu mu toll si type de compagnie bi nga xam ne moom ngay ñëw pour mu exploiter déjà man damay wax souvent su fekkee on peut faire des critiques mais qu'est-ce qu'on peut apporter que l'État a besoin sur le code pétrolier moi je l'ai lu il y a ces éléments de cost oil je encore rebondir pour wax la foofu la nœud de guerre bi nekk. Mhm. mooy rek contrat de partage de production il ces éléments de cost oil qu'il faut comprendre parce que il y a l'élément de explo ça veut dire quoi de capex de opex ils ont une signification. de l'autre côté ils ont parlé de profit oil du coup enjeu bi fi mu nekk à chaque fois cost oil bi di gën a élevé ci tourne autour chez nous de à l'État perd des avantages au niveau la ñu war parce que ñun def nañ ko et cours yooyu sax bu ñu ko doon def c' des gens de Total un expert de Foucade qui était sa dernière année de service dafa ñëw ba ci profit oil bi man li ma gis fii déjà des fois dama naan c' est de l'arnaque parce que su fekkee cost oil bi day prévoir tout ce qui est coût d' investissement nga ñëwaat ni si tu fais des découvertes au-delà de 500 de profondeur si on fait une production de 0 à 50 la compagnie pour cent kon code bi foofu la ñu war a xoolaat foofu déjà dafa am piège war nga mën a exercer cost oil limite créé waat beneen paramètre bu ñuy wax excess oil parce que bu may ñëw ci enjeu financier bi damay revenir également sur le prix du baril parce que dafa nekk un cours volatile mhm. mën nga am tey cinquante dollars nga am cent cinquante dollars comme ce qui s'est passé en 2008 donc élément yooyu laay wax ni fan lañ koy fexee ba jéem a aider état pour moom mu mën a défendre ay intérêt man la ñuy ñëw même le ci si on n'arrive pas à comprendre ce terme souvent dañuy dupe explo mënoon naa wax lu muy signifier capex lu muy signifier opex lu muy signifier loolu mooy garantir le coût d'investissement du coup ñun suñu PME suñu PMI mënul assurer certains investissements parce que on utilise de l'industrie lourde foofu dafa am ay défaillances nga xamante ne tant que maîtriser wuñ ko exonération du problème profit oil en temps normal on ne pas avoir moins de 50 ñu ni la si on produit de je ne pas zéro à cinquante mille li gën am solo dans la zone Wamer c'est-à-dire la <laughs> la zone de l'écorégion première découverte bi c'est en Mauritanie c'est le même pendant géologique te li ci apasula mooy découverte yi ñuy am dafa am si benn milieu bu ñu ko am boo hmm. xoolee le gaz c'est environ dans des profondeurs de 1800 à 2000 et de profondeur que ça soit le bloc de Saint-Louis offshore profond jusqu'à présent foofu la ñu code bi du coup n'est pas compétitif kon baax na ñu def benn stand-by maîtriser le contenu renforcer la capacité également des Sénégalais pour ñu mën a défendre également l'équilibre d'intérêt des états nationaux des états financier environnement bi nag dafa nekk lu am solo dama koy aborder sur trois points l'environnement d'une partie liée au changement climatique parce que c'est encore l'exploitation du pétrole et du gaz il y a cette émission de gaz que c'est lié aux pratiques on utilise souvent le au lieu de trouver des paramètres, des garde-fous comme des capteurs de, de, de, stockage de CO2, souvent ce n'est pas les bonnes pratiques que l'on applique. Okay. Donc, nous avons problème enjeux environnementaux. Retour sur la biodiversité, moi, le changement climatique va affecter ce que l'on appelle les, les, coraux, les coraux le blanchissement des coraux. dafay fait un impact sur la chaîne de valeur. Donc, l'autre élément le plus important, c'est la biodiversité marine dont dépend la pêche. Je vais le dire encore pour moi, vous. Dire... quand je parle biodiversité marine. biodiversité c'est l'équilibre qu'il doit y avoir au niveau de. dafa dafa toucher trois points essentiels. c'est la mm -hmm. diversité des espèces diversité écosystémique et diversité. Euh, oui c'est la diversité des espèces écosystémiques et diversité des des des comment dirais-je. ce sont ces trois éléments qui composent la biodiversité. Mm -hmm. donc avec ces éléments ce qu'il faut faire ressource halieutique bi moo tax man la la biodiversité est menacée. Donc si la biodiversité est menacée, ça peut avoir des conséquences sur la pêche. Nous tous, nous savons que le Sénégal est un pays côtier, est un pays de pêche. Mm -hmm. Et mhm. si je reviens un peu sur les chiffres qui ont été donnés par le ministre euh, du pêche et de l'économie maritime, en 2016, le de la pêche a généré environ 204,44 milliards, avec un taux d'exportation de 196 000 et quelques tonnes. Donc, dans la zone autrière. Cette zone n'est pas encore Et à travers mes recherches,

naturellement day boo boo. xaw ndax da ngeen ci dañ ciy perte wala duñ ci perte. dañ ciy perte xam nga dafa am un rapport bu bu banque mondiale publié en 2015 sur euh, l'évasion et la fraude fiscale mooy transfert illicite de bénéfices à partir de l'Afrique ñun Afrique day perdre lu mat euh, trente milliards de dollars loolu boo ko évaluer day nekk vingt cinq mille milliards yoo xamante ne Afrique da koy perdre. donc pour de continents yoo xamante ne dañu nekk à la à la à la à la recherche d'une ressource financière pour soutenir le le décollage perdre ay recettes yu toll noonu c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est vraiment c'est dramatique donc de ce point de vue là il est naturel que war nañu am yoo xam ay garde-fous yoo xam dañ ko appliquer xam nga boo xoolee la tendance mondiale ci côté verrouillage pour sauvegarder les intérêts des États face aux multinationales dafa am loo xamante ne dañ koy wax l'éthique des affaires te éthique des affaires boobu les compagnies amuñu ko parce qu'ils sont à la recherche du profit moo tax ñu mën a def des dégâts environnementaux bu si l'état n'est pas suffisamment fort duñ fay gouvernement yi fa nekk bu ñu amulee fula gu doy duñ fay moo tax ñuy ut ay clause de stabilisation yoo xamante ne day garantir seen investissement maintenant que le déjà même certains engagements ñuy jël par rapport à la réhabilitation des site duñ provisionner lu doy pour bu ñu dee dem ñu mën ko defar en réalité loolu yëpp dafa laaj une pluralité de compétences moo tax man du may d'accord sur ci ci quand le doyen Mbuub ne dafa am loo xamante ne bu eggee nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi non le code pétrolier réjourul kese la phase de prospection ak yoo xamante ne phase u xeer la phase u loolu bu doon roche ak xeer rek dañ koy bàyyi ingénieur pétro Petrosen sans problème d'ailleurs on leur dispute même pas cette compétence là qu'on n'a mais boo waree gérer des aspects environnementaux gérer le l'impact, les impacts sociétaux gérer la la bonne gouvernance parce que toujours les ressources naturelles moo tax ñuy wax malédiction des ressources mhm. saa yoo demee da ngay fekk ñu gis nga état yi nga xamante ne le même rapport de la banque mondiale ma doon wax da koy cité état yi nga xamante ne ñoo gën a dépendant de la ressource naturelle parce que amuñu développé ñu une économie à côté ils sont ils sont frappés par ce qu'on appelle le syndrome hollandais dañu am bàyyi li des maanaam Sénégal am ay ressources rek sàggane agriculture sàggane leneen mhm. état yooyu ñoo gën a am ay nit ay groupuscules yoo xamante ne ñoo caporaliser la ressource ba les populations duñ ci mën a gis seen bopp. donc moo tax bu ñu eggee ci étape révision code électro euh, euh, pétrolier mënuñu ko bàyyee ay Petrosen ak ay ingénieurs jàng nañu fii jàng nañu fi non c'est une pluralité de compétence la preuve la société civile dans le cadre du code minier ba pour les aspects de gouvernance bu ñu waxee ne nañ nañ introduire la la la kii nu mu tëddati nañ introduire la disposition sur les conflits d'intérêts de sorte ñi nga xamante ne dañoo jege phase signature contrat yi wala dañoo jege la contrôle des entreprises duñu mën a am des prises de participation dedans mais niñ ko doon euh, laajee ak ni ko gouvernement bi defee du benn parce que ñoom dañoo bëggoon ñu étendre ko surtout surtout aux dirigeants euh, étatiques parce que ñoom la gën a concerné mais ils l'ont limité aux ingénieurs de la de la direction des mines et de la géologie ah, bu ñu nekkoon rek amuñu expérience côté mine kon duñ ci wax mais bu ñu xoolee le projet d'avant-côte bi ñëwee ba ñu discuter fii ñun dañu leen wax ne mënuñu ne à un à une à une société qui vient que par rapport à la RSE yow da ngay discuter ak ministre bi lu mu wax loolu ngay fay parce que ce contact là entre l'entreprise minière. peut-être source de corruption. ñu ne leen kon na ngeen ko indexé par rapport au chiffre d'affaires ba tey boo demee dans le code des mines loolu nga fay fekk c'est grâce à Pastef moo tax il faut que aussi ñu ñu ànd ci ñun ñëpp la war a doon ñu ànd ci humilité bañ ne non phase bi ñun rek lay doon phase bële bu eggee nag mais c'est trop tard bu booba donc c'est des choses yoo xamante ne gis nga boo demee et termine par là au, au, au mm-hmm. Ghana et c'est un exemple qui doit nous inspirer sur les plans gis nga Ghana am nañu loo xamante ne dañ ko dañ ko tuddee le Public Interest Accountability Act committee dafa dem ba dépasser contrat bi buñ ko dee signé dañ ciy dugg dañoo dem ba ne ñun ñu nekk dans ce comité là nga xamante ne Ghana yëpp la ñuy représenté bu demee ba ñu am ay revenus ñun ñooy toog nekkal fi askan wi ne voilà les secteurs dans lesquels la ñuy investir les revenus yoo xamante ne dañ ko tirer te boo demee cet cet cet cet outil là qui est à la limite le pendant du code COS perverti qu'on a ici mm-hmm. il est majoritairement composé de journalistes de membres de la société civile et de chefs coutumiers traditionnels xam ngeen doo leen wax ne am nañ expérience ci ingénieur lañ fii ingénieur fële moi c'est des choses yoo xamante ne ça intéresse toute la nation donc tout le monde a quelque chose à dire ci étape bu ne maintenant Serigne que xalaatoo tim na COS bi bi président institué pour que mu def l'unanimité parce que COS bi bañ ko institué aussi c'était pour faire taire de polémique bi ñu doon wax ci wàllu pétrole bi dugaloon ci ay membres société civile du yàq dara non étape bi ñu toll je pense que lu nekk étape la société civile kenn du ko bàyyi gannaaw il faut faut pas aussi ñu wax loo ñu lu ñu lu ñu waxul euh, ñuy réviser code pétrolier bi mais ministère des finance mi ngi ci c'est que yoon leen ci rek parce que <laughs> ministère des finances ngi ci ministère des finances moom moo nekk ci xol bi ministère de l'environnement mi ngi ci biir bu baax ak pétrolier bi oui code pétrolier bi mais attends c'est important foo ñu wax loolu nit ñi fu ku nekk gis ni dama ci war a dugg parce que ma am xam-xam xam nga léegi bi may wax ne inspecteur des impôts inspecteur trésor bëri na Sénégal du benn group rek mais ñoom ñu ngi ci bu baax am nañ ci responsabilité euh, Cospetrogaz d'abord il faut ñu xam lan la président de la République dafa am conseiller énergie maanaam conseiller bi mel nañ ne rek dafa externaliser conseil boobu nit doyatuma ci na nekk benn groupe buy réfléchir pour man tous les ministères mm-hmm. concernés de l'État, ils sont évidemment les finances, même le ministère des Mines, parce que y a beaucoup d'expérience yu ngeen fa jëlee ñu ngi ci évidemment ministre du pétrole et de l'énergie mi ngi ci les sociétés parce que nag <laughs> mais Sénégal kenn mën na leen a gën a xam courant mais Sénégal nañu xool ne société nationale la ñun lañu fa nekkal Petrosen wàllu pétrole société africaine de finance même bu dee société majoritairement privée outil essentiel ci biir Sénégal ñu fa ak ñeneen ak ñeneen ak mission c'est conseiller le président wante l'exécution des fonctions euh, bi nga xam ne ministère de l'énergie moo ko yor kenn changé wu ko président conseiller am rek la ni kenn doyatuma ci découverte am na naa ko démultiplier mu nekk ñu bëri donc loolu la Petrosen continuer di def liggéeyam en rapport ak société yi nga xam ni ñoo fi nekk yëpp loolu je pense que c'est important pour ñu wax ko àggaguñu foo xam ne comme Ghana bi muy wax mais Sénégal président Ghana ñëw na fi wax nañu mission COS dem na fa ñoom ñëw nañ fi ñu ngi waxtaan loolu muy wax ay nit ñooy daje def nii ñun on va faire plus dañuy liggéey ci benn loi d'orientation nationale qui va être une loi constitutionnelle boo xam ne bu jotee ñëpp a ciy bokk. bu naan ah, bu naan oui bu naan exclusivité bu naan non non non mais loolu yàgg nañ ko wax ah. bu naan euh, x pour cent éducation la jëm x pour cent santé la jëm x pour cent génération future la jëm. et que FONSIS moo koy utiliser di def donc dañuy dem Norvège dem fu nekk xool leen meilleures pratiques dans le monde. loolu la ñuy préparé nii mais bu ñu demee ba loi bi pare comme code minier comme code minier mais dinañ ko ubbi pour nit ñi ñëw ñu wax leen li ñu bëgg a def. donc pour dire dañ yàkkamti xam nga découverte yi am na waaye fi ne comme ni mu ko waxee coow li mooy nu ñuy def le plus important fan lañ jëm. lu ñuy def ku fi ti nu muy dikkee ak exploitation yi ñëw nan lay demee donc enjeu yi dafa rëy. te dafa bëri contrat ah yi ah oui en attendant le nouveau, nouveau code waaw loolu c'est ñëpp xam ko. Mhm. et pour dire ñëpp d'accord nañ code code pétrolier bi war nañ ko mën a améliorer ci domaine yu bëri li ma wax nag nii. Euh, ñi ngi ciy liggéey dafa toll foo xam ne liggéeyu expert la waaye am na fu muy toll dañ ko ubbi comme code minier bi ni ngeen def xëy na 48 heures tuuti na nañ ko gën a yaatal ñu bokk ci mais am na ñetti affaire yoo xam ni dama ko bëgg a leeral parce que daf fi génn te buñ ko leeralul day kii wax na contrat de partage de production il faut ñu dellu si contrat de partage de production moo am ak concession ak contrat de service contrat de partage de production mooy Sénégal lu fi feeñ man état maa ko moom te président dëggal na ko def na ko ci kii bi. askan wi ko moom léegi. oui askan wi. pétrole gaz bi ñun ñoo ko moom c'est important c'est-à-dire. compagnie bi ñëw nag. répété loolu non c'est important. répété pétrole ak gaz bi ñu dëkkul Sénégal yépp mhm. askanu Sénégal moo ko moom. Cosmos ak BP moomuñu dara dara amuñu ko ci. léegi nag dañ leen ni comme yéen a seen xaalis pour mu feeñ dañuy jël x pour mooy li muy wax ni euh, recouvrement des coûts di leen ko jox di leen rembourser li ngeen ci def ba pare ma compal leen ci li nga xam ni moom laa dese mooy production restante jox la ko bénéfice. tout le long du projet donc c'est important même bu dee 75 encore que c'est limité code pétrolier bi 98 am na plafond ah recouvrement des coûts mais am na réew yoo xam ne comme Nigéria comme yeneen réew dañ la naan bu feeñee ñoo moom lépp duñ jël dara nañu produire di la fay li nga fi investir ba mu jox ñu jël suñu yëf am na réew yu def la ñun dañ ñu Sénégal xel xalaatul ñuy produire pétrole <laughs> amuñu sax ñu ngi am ay provisoire ba léegi même si xeex baa ngi ci euh, xeex bi am na ci solo lool te duñu am dara moo tax ñu ni il faut ñu bàyyi une partie boo xam ne dañ koy jël waaye loolu année yu njëkk yi la le temps d'amortissement justement procédure la euh, durée du contrat c'est combien la durée du dépend du profil de production mais mën na nekk vingt cinq ans renouvelable extensible dix fois dix ans benn yoon donc mën na nekk ba cinquante soixante ans mais ça dépend du profil de production boo découvrir tey nga def profil bi ni kat lii dix ans lañ koy produire dix ans la mais bu dee vingt cinq ans wala muy trente cinq dañ lay may vingt cinq ans paree ñu mayaat la et cetera donc loolu moo ci nekk euh, mënul am euh, euh, problème boo xam ne mën na kii parce que bu ñu recouvrer investissement yi ba pare ba amortissement période d' amortissement c'est entre dix et quinze ans je crois selon les types d' équipement li ci des yëpp état moo koy moom su doon am cent franc kee di am moom parce que comp tout tuuti lay dese. et ça c' est important beneen bi mooy les paradis fiscaux paradis fiscaux ci pétrole bii nii mais ça ne peut pas exister parce que dama dégg ñu koy wax les ça là c'est pas important lu ma la wax dama leen état moom moom pétrole soo ñëwee investir nga mu rembourser la li nga investir yëpp ne am li mu lay jox c'est un bénéfice net te nag saway nit bu ñëwee sa réew di investir bénéfice net boobu code pétrolier garanti na ko mais même code des investissements le bénéfice est transposable à l'étranger sans problème mais ñoo bokk production bi li am solo mooy ñun ñu former suñuy ressources parce que coow li yëpp foofu la bu ñuy produire parce que comme ni mu ko waxee cent vingt kilomètres en haute mer bon euh, dans d'autres pays c'est arrivé qu'on a produit 2000 barils fekk na 50 000 barils lañ produit il faut que ñu am capacité. de contrôle moom laay wax fa nekk eh, aussi foofu la foofu la prévoir na ko. bëggoon naa dernier élément important. voilà ko mayee Pape bu mu soulever. Hmm. sur les questions environnementales. le code pétrolier dafa prévoir des des des des montants destinés à l'abandon des sites c'est-à-dire tey bu ñu dee produire commencé di fayeku mille francs mille francs. dañ naan dix francs au moins dañ koy denc kenn du ko laa pour que bu fit bu bu bu ñu demee ba production bi yax ñu mën a régénérer le site tel que c'est donc il y a des provisions d'amende de site très bien mais est-ce que l'État am na capacité controler ces majors là qui tirent qui qui exploitent ça aussi c'est une question faut former ah. les gens et puis ça la loi. je, je crois, je crois qu'au-delà de ça est-ce que État bi am na capacité boobu au la de la capacité état bi mun a surveiller parce que loolu il faut que ñu tàggat ñi war a surveiller ci loolu. Mhm. Euh, former leen am aussi jumtukaay yi nga xamante ne. yow da ngay am sa propre logistique pour am en mer. mais balaa loolu am na lu gën a important mooy que lii borom bi baaxee askan wi mu nekk ci xolu géej gi askan wee ko moom. c'est te léegi. ñu ngi wut ay pexe naka lañ ciy jëmee nguur gaa ngi tàggat boppam di defaraat kon pétrolier bi jumtukaay la mais jumtukaay bi pour askan wi la mënuñu ne da ngay xaar ba experts yi defaral la lépp wutal la schéma économique bi ban sorte d'industrie pétrolière la ñuy def yan choix ñooy engagé réew mi ak askan wi pour le futur te amuñu ci wàll ci duñ koy nas. il faut une démarche participative. cos pétrogaz cos pétrogaz mais outil stratégique la. ñu nangu mu nekk un instrument politique et instru et institutionnel yem fa. c'est un énu. c'est que cos pétrogaz ba dafa ci wax bu nekkee bu nekkee ne dañ ko def. organe d'élaboration lay war voilà bu nekkee c'est institutionnel lu mu wax. la société civile mën na ko rejeter ne leen ko ça n'engage que vous. parce que loolu mën na na leerul. muy benn ñaareel bi. schéma institutionnel bi dañ ko war a revisiter. Mhm. cos Petrogaz dafa war a am i Petrosen hypertrophie Petrosen dañ ko war a seetaat. société nationale la société d'exploitation la outil technique la outil politique la uti de promotion la lépp lay def. restructuration <laughs> Diomaye eh, sur le contrôle euh, des majors par l'État est-ce que État dina am les moyens pour faire ça non en fait pas pas en tout cas à l'état actuel mm -hmm. il y toujours ci cas yu mel noonu une asymétrie d'information entre kii seet ba ne gis naa mais lu mu la wax ne gis naa rek moom ngay jàpp déjà man je suis tombé sur un documentaire qui disponible sur internet par exemple où c'est le ministre de de, de l'ancien ministre congolais des mines et de l'énergie qui dit Total moo doon exploité ñëw ñu lii la on a aucun moyen pour ah, contrôler. j'ai vu ça mais le Sénégal c'est pas ça. non Sénégal xamagoo luy am doyen. si xam naa non non xamagoo lu nar am. xamagoo lu nar am parce que non déglul. parce que non Total. Total logique bu doon tax mu def loolu au Congo. logique boobu Total bàyyiwu ko c'est une logique économique. Sénégal les équipes c'est important pas. non les équipes de Petro. moo tax ma ne mu terminer non non non xam nga les équipes de Petrosen Petrosen c'est le problème bu ñu am ñoom. c'est le même problème qu'on a au niveau de l'administration fiscale parce que l'exploitation pétrolière implication économique yi mu am ñu muy interpeller comme acteur étatique dañoo bëri c'est pas que la Petrosen problème yooyu ñu am foofu ñu la am aujourd'hui ñi fi nekk de on est en train de les fiscaliser est-ce ñu ngi fay impôt malgré phase yu ñu nekk est-ce que xam nga ñu ngi leen di vérifier vérification comptabilité comme ni ñu koy defee yeneen kii mais bu ñu demee am na foo xam ne duñ fa egee on est limité un sur le plan de technique deux sur le plan même euh, de la langue parce que bëri nañ ay contrat yoo xamante ne ay contrat anglais la donc connaissance su secteur bi ci boppam ñun ñoo ñoo ñoo ñu ko ëppale foofu am na loo xamante on ne wax rek la ñu am dafa kon ndaw réew mi ngi nekk ci secteur phase de contrôle yi comme mu nekk phase u exploitation euh, mhm. matériel bi comme phase contrôle déclaration yi ñu tàggat leen pour ñu comprendre du nekk mukk au même titre mais ñu comprendre bu baax ba duñu leen mën a flouer donc aujourd'hui on n'a pas encore ces moyens la donc Sénégal nag dans l'accompagnement yu mu war a def par rapport à ces ressources mooy nañu anticiper te loolu ñun dañ ko yàgg a wax les métiers qui peuvent dériver du pétrole dañoo bëri dañoo war a ci main d'œuvre boobu pour que ñu bañ nekk loo xam ne ñu romb sous parce que si les compétences ne sont pas les entreprises n'hésiteront pas ah, les rechercher ah, les majors sont des euh, évidemment mhm. il a réussi peut-être dans le pétrole c'est parce qu'il a développé des services d'experts mhm. tout à l'heure vous avez posé la question les instruments dont se sert actuellement xam nga dafa am lu ñu fàttee wax sax bi mën ay rappeler un les impacts liés à l'environnement xam nga exploitation pétrolière c'est un processus tout à l'heure mi ngi nii peut-être direction de l'environnement ils vont participer sur la révision du code et tout mais même au niveau international il y a pas encore une convention internationale qui régule le secteur pétrolier donc là ça pose problème il y a énormément de spécifiques par pays de la première activité euh, de l'exploitation pétrolière qui est la campagne sismique on émet des ondes sonores qui sont très fréquentes et en plus qui déstabilisent un peu les ressources halieutiques telles que les, les, les cétacés. Parce qu'en 2015, on a assisté cela auprès de Côte de Caillard. Mm -hmm. On a vu qu'il y avait des baleines qui se sont échouées. Est-ce que c'est une coïncidence par rapport aux activités sismiques ou pas Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse, mais il y a Angas qui avait fait une étude sur ça mm -hmm. pour montrer un peu la sensibilité même liée aux, aux, aux ondes sonores. Mais dans notre côte, nous n'avons pas ça. il y peut-être uniquement ce qui concerne les eaux usées, cest dire la norme de 2003, qui, qui met un peu l'accent sur les DBO, les DCO, ou bien les hydrocarbures totaux. Mm-hmm. bu ñu ñëwee sur la la les eaux de ballast bu ñu ñëwee sur l'eau de production bi nga xamante ni une fois bu ñu extrait dañuy def le traitement am ay scientifique yi ci bind ku mel ni Patin en 99 dem ba mesurer le HAP qui existe sur le pétrole et sa différence par rapport au gaz mu dem ba gis ni du coup am nañ pétrole am nañ gaz. mais aromatique hydrocarbure polycyclique bi toxicité am nee na bu ñu ko rejeté en milieu marin bu amee en contact avec les ressources ça peut entraîner la féminisation du poisson mâle donc à la limite qu'est-ce que ça peut causer comme dégâts. Ah, donc ça c'est compliqué euh, qu'il faut vraiment maîtriser en tout cas je pense que comme on n'a pas encore jot mën na mën nañ def ay jéego ah. am nañ yaakaar am nañ jéego dafay de part d'autre je pense que loolu aussi. il faut que au delà de la polémique moo am ay jéego état bi am ouverture bañ jàpp ne rek c'est un regard critique ou polémiste parce que lii ga ah constructif constructif aussi mm-hmm. pour tamit contrat yi bu nekkee ne lépp leer na ñu publier ko ne lii lañ signe ak major yi parce que ñun kat liir nañ ne multinationales yi moom doole yu ñu am dañuy fal président sax di ko folli ah, dañuy fal président di ko folli loolu am na fi ay dëkk du ma jaar ci dëkk yi nga xam ne financé nañ fa ay guerre civile pour récupérer encore le pouvoir fal fa kon ñun ñaanuñu yàlla que le pétrole soit une malédiction pour nous ñoo bëgg mu jariñ ñu mm-hmm. pour mu jariñ ñu nag il faut que defe naa ñëpp war cee mën cee bokk mm-hmm. jàpp ci ñu bañ a xeeb kenn bañ a xep kenn vraiment je vous remercie Serigne Mboup Bassirou Diomaye Abdou Malick Bousso et Abdou Guèye maa ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax euh, di sant di gërëm mbokku euh, téléspectateurs yi di leen dig daje incha allah seen beneen émission décryptage merci